wa sallallahu taala wa sallam wa baraka ala nabiyina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa qadimihi wa sallama tasliman mbokk yi seetaan muy television bu mag bi nekk ci jumaay Touba ñu koy wax muqaddimatul xidma TV ñoo ngi leen di nuyu di leen wax assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu di jiital ci nuyoo boobu ak ziyaar bi saaxibul fadilati al cheikh Mouhamadin Muntaxa alxalifatul am li tarixatil muridiya di ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu yàggal ko fi lool te may ko wér ba semb yu yi mu semb te muy semb yu am solo jëme ko ci yoon wi jëme ko ci réew mi suñu borom kàttanal ko ba mu mën koo àggale ba semb yeneeni semb yàlla mën na ko yàlla na ko def mm-hmm. di ziyaar itam mbooleem njabootu cheikhul xadim gi yépp moo xam góor la wala jigéen di ziar mboole mbokki talibe yi nga xam ne baaxoo nañ di ànd ak ñun ci jataay xam-xam yi nga xam ne ñu ngi koy amal fii ci MK TV ci Jumaay Touba te tey jii di benn ci jataay yooyu tey nag di dibéer dëppoo ak juróom benn fan ci weeru Jumaada Saniya ñu koy wax maamu koor atum 1443 dëppoo itam ak juróom-ñeenti fan ci weeru janvier atum 2002 di ñaan di ñaanal mbokki jullit yépp atum jàmm suñu émission bi ñu am tey nag te baaxoo koo am ci weer wu ne ñu koy wax at liqaat at mooy ndaje ndaje di jataayu xam-xam boo xam ne dañ ci dalal ay boroomi xam-xam ay gëstukat ay bindkat ci fànn yu wuute ngir feeñal xam-xam waaye feeñal itam gën a mën a tasaare njàngaleem cheikhul xadim loolu moo taxoon moo tax a jóg émission bi ñu wax liqaat tey nag suñu daje ñu daje nag ak benn kàngam bu mag di boroom xam-xam boo xam ne yi ñu tuddoon sànq yépp daje na ci moom boroom xam-xam la gëstukat la bindkat la bu ñu waxewu turam jàpp naa ne ñépp danañ miin jëmmam fii ci barab bu tedd bii di jumaay Touba muy Serigne Khadim Sylla docteur Khadim Sylla docteur Khadim Sylla moomu yàgg nañoo ànd ak moom ay jataay ku miin jataayi xam-xam muy conférence yi ñuy def ci ramadaan bi ci weeru koor mu xaddamatul xidma di ko taxawee ci jumaay Touba dana gis taxawaay bu am solo bi mu ciy taxaw menn at mum ko mos a amul at mu ne dana ñëw ànd ak ñun jataayi xam-xam yooyu ak mboolem jataayi xam-xam yi nga xam ne day am ci dëkk bi wala ci yoonu murit sax d'une manière générale membre la ci Rawdu xiin di mbooloo mu mag moom mu nga xam ne moom la sëriñ bi dénk lépp lu aju ci xam-xam ci yoonu murit te sëriñ Ahmad Badawi moom Cheikh Mouhamadul Fadil jiite ko ñu ngi naan su ñu ñaan suñu borom kàttanal leen te dëgëral leen taxaw leen itam ba yaakaar ji nga xam ne moom la sëriñ bi am ci ñoom jamono bu ne ñu di ko feejal sëriñ Xaadim si la moomu moom lañ fas yéene dajeel tey ci liqaat kon dafa mel ne ndaje daje naag euh, kàngam bu am solo kon bala ñëw sóobu ci waxtaan wi rek dañ koy jox mu nuyoo bu ko defee ñu tàbbi ci waxtaan wi sëriñ Xaadim asalaamualeykum. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. Eh, sëñ Ablaye ñu ngi nuyu ak eh, siyaare bokki barab bi yépp dilee leen ndokkeel ci eh, at mu yees mi. ak ci xew-xew yi nga xam ne ñoo jàll yépp te barab bii ak kuréel gii di muxaddamatul xidma taxaw ci taxawaay yu yéeme wuuti ci mboolem doomu daara yépp waaye wuuti ci mboolem nag ñi nga xam ne ñoo yittewoo xam-xam ak liggéeyal xaadimu ñépp ci tasaare am jàngaleem ñuy am mbégte mu rëy nag ci teewaat fi waaye di leen sant bu baax nag ndax liggéey bu rëy bu tol ni bii ngeen sasoo di ko liggéey ci biir liggéeyu xaadima rasul bu mag bi ci barab bu tedd bii e képp koo ca boole rek moo la war a sant ndax tawfiix moo ciy boole nit kon yéen ñi ko yàlla sedd nag ku ngeen ca laat rek moom moo leen ameelu cant kon dañuy yeesal sunu cant ci yéen ndax fu ñuy bayee rek dafa mel ni fii nag mooy barab bi nga xam ne mooy digg tool bi nga xam ne fii la liggéey bi war a tàmbalee maanaa nag doog a tasaaroo nag jëm ci barab yi mu war a jëm yépp ndax fii la lépp soso kon nag noo ngi bég lool ci teewaat di ñaan sunu borom defal nu tawfiix ci biir léegi bii nu bokk ak ci biir jataay bii amin jërëjëf sëriñ Xaadim ci ubbi gu am solo gi nga xam ne moom nga ubbee ni ma ko waxee woon nag euh, ku daje kuy kuy def ndaje ba daje kàngam bu mel ni yow faaw nag ñu waxtaane yu baree bari mhm. ci yoon wi mhm. xëy na sax xëy na waxtu yu du maye lépp mhm. waaye ñu def ci suñu kem kattan rek ndax xam nañ sa taxawaay ci yoon wi xam nañ itam gëstu yu am solo yi ngay gëstu di ko bind ci yoonu murit te jamono bu ne loolu euh, taalibe dañ koy soxla mm-hmm. dafay soxla ñu di leen soññ mm-hmm. rawatina xew-xew yi nga xam ne day xew mm-hmm. taxawaay bi nga xam ne moom la yoonu murit am ci xew-xew yi xew loolu itam taalibe yi dañuy soxla bu baax mawaqif yi nga xamante ni moom lañ ci war a am loolu moo tax ñuy ñuy bég lool ci ñëw gi nga ñëw ci jataay bi ni ñu ko waxee nag suñu beenu waxtaan dañuy waxtaani dëkk bu tedd bii di Touba ci la ñuy tàmbalee dëkk bu tedd bii di Touba nga xam ne Cheikhul Khadim suñu boroom moom la ko jagleel mhm. te mu sos ko dara taxul mu sos ko lu dul jaamu yàlla ak yarita yar mhm. dëkk bu sell boobu ci di Touba soo ñu doon tënkal xam ci nu mu sosoo ak lu taxoon sëriñ bi sos ko ak ñi fi war a dëkk wan ban comportement lañ war a am sëriñ Khadim <laughs> eh, noonu nga ubbee rek loolu maanaa ab tënk la boo xam ne xëy na ak lëf ak yatal lay doon waaye mooy loolu nga wax rek mooy li tax sëriñ bi sos dëkk bi ndax subhanahu wa taala e, daf noo andi ci kaw suuf ngir ñu représenté ko fi ci biir ñun ñëpp andi ci biir suuf it mu tànnaat ci ay jëmm yoo xam ne def leen a jox ndono yonent bi sallallahu alayhi wa ndax bi yàlla indee aadama ci kaw suuf ba léegi e, waxtu wu nekk rek daf daan yebal ab yonent bu jamono yàqoo ngir mu ñëw defar li yàqu jubbanti li dëng biñ demee nag ba ki mujjee ñëw sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa doon koo xam ne duñ yónniwaat kaneen gannaawam waaye li fekk nag adduna tukkeegut la warala ñu daan yónni ab yonente muy teg jamono ak maanaa réer ak teg nit ñi moom li fekk eh, tukkiwul du fi jóg loolu moo tax nag eh, ñu jagleel yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngir sàmm risalaam boobu mission boobu muy continuer ba ilaa yawmi diin et téeméeri at yenn yu nekk comme ni ko yonent bi waxee danañu yebal mu jaddit muy koo xam ne dafay ñëw yeesalaat li nga xam ne mooy li fi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyi woon loolu itam sunu borom subhaanahu wax ne ku mu yónni wala ku yabal ku nekk nga nekk euh, maanaa koo xam ne mission nga yor et mu xamal ne mission boobu nag foo nekk ci barab boo xam ne et la mission ba laaj ci doxal ko e mënoo ko faa defee daf laa digal nga gàddaay dem foo ko mën a defee fu yaatu foo xam ne tey dara du la gàllankoor ci liggéey boobu loolu nag Seexul Xadim dund ko bu baax dundal ko par bii di Tuubaa xam ngeen ne bi mu wootee woote mbure yi boobu ci Mbàkke Kajoor ci 1883 jëm 84 Labayote ba laaj ci defaraat jamono ci delloowaat nit ñi ci njàngalem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam delloo siwaat méthode yonent bi nga xam ne mooy wala si baasa fil ummiyina rasulan min um yatlu alayhim ayati wa yuzakkihim waaye wa yuallimuhumul kitab wal hikma muy wa yuzakkihim ja nga xam ne tey dafa aman jamono yoo xam ne e, doomu soxna yi dañ ko xaw a gannaawal yatlu alim ayatihi ñi ngi ci wayu alimul kitaab waaye dañoo doon burle wayu zakki im te mooy tarbiya muy defar nit ki nag ba mu defaru e, loolu nag lamu laaj ci ab liggéey e, ci foofe mu nekkan ci fi yoon wi juddoo gis na ne loola mënu ko faa defee ndax foofa dafa saturé woon ak trouble ba fa nekkan ak yu bari mu gàddaay ñëw mbakke Bawal toog fa ab diir waaye gis ne ba tey li mu bëgg mënu ko fa ame mu gàddaay ñëw Daaru Salaam waaye jóge Daaru Salaam ñu ngi ñëw Tuubaa gi nga xam ne moom la ko sunu borom subhaanahu wa tànnal ngir li nga wax muy taxawal fi madinatul fadila muy dëkk boo xam ne e, barab boo xam ne li ko tax a jóg mu tax mu sanc ko mu yéene ji tax mu sanc ko muy jaamu yàlla ak tënku ci dund sunna yonente bi sallallahu alayhi wa mooy jaamu yàlla goo xam ne e dañ koy wéer ci sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci ni yonente bi daan dunde ci léppam nag ci wàllu wax ak jëf ak comportement waaye nag yar mboolem koo xam ne ko ànd ak moom wala nga gàddaay fekk si ko fii ci loolu defar jikko yi ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam innama bu'istu lu utammima makaarimal axlaaq mooy defar jikko yi ba mu sell ba nit ñi juboo ak seen borom waaye juboo ak seen morom yi doomu aadama ak seen morom yi bindee fii yàlla yépp lu ci nekk lu ne ñu sàmmonte ci ak aqi sunu borom subhaanahu wa joxe ca mandargay ragal yàlla dëgg loolu kon ah, moo tax mu sañ ci dëkk bi waaye lu ci nekk nag e, loola la koy laltaay nag mooy xam ndax nit et mënoo fonk loo xamut mënoo jëfe loo xamut loolu moo tax nag njàngale mi xam-xam muy liggéey bi xam-xam la ci jiital moo tax gis nga ci matlabul fawzayni waj al binaa iya binaa ilmin waaye wa amalin bi sunnatin wa ilmi barab bii maa ngi ñaan nga def ko muy barab boo xam ne barabu xam-xam la waaye barab la boo xam ne dañ fiy jëfe sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam barab la boo xam ne itam ñi fiy nekk dañuy dund sunna waaye dañ koy dundal mu daal di ci biir loola wal tusbitan fii jamaatan tuqiim as-salawatil xamsi da'ban yaa hakim mu yóbbaale lépp nag maa ngi ñaan nga saxal fi nag mbooloo yoo xam ne dañuy respecté ndax comme sunu borom subhanahu jaamu yàlla yim lu sant julli moo ci gën a màgg moo yóbbaale lépp koor a ngi ci biir julli asakaa ngi ci biir julli ak màkkaa ngi ci biir julli kon moo tax bu ko waxee dafa yóbbaale yépp muy julli ak i bokkam wal tusbitan fii i jamaatan tuqim assalawaatul xamsi daban yaa akim waaye atooka an taj alahu daara tuqaa wal ilmi wa diini wa daar irtiqa na nekk barab boo xam ne e, barabu maa ngi ñaan mu nekk barab boo xam ne barab yàlla la barab boo xam ne ku fi nekk kenn ku nekk da ngay daw ay moytandiku lépp loo xam ne sunu borom subhaanahu daf la tere ci wax ak jëf ak ci comportement waaye barab la boo xam ne ko fi nekk ku nekkit da ngay xar sa bakkan def sa itte ci tënku ci mboolem li nga xam ne mooy njàngalem lislaam ak ndigali sunu borom subhaanahu wa taala waaye jaare ko ci nag li nu yonent bi rëddal mu nekk barab boo xam ne itam nit ñi dañuy ittewoo xam-xam waaye dañuy ittewoo dund diine ak dundal ko waaye nit ki dañuy ittiwee waxtu wu nekkit kenn ku nekkit wut am sa kuraasatul muraqaba di contrôler sa bopp bis bu nekk nga bëgg di yokku nag di def sa bilan ci sa bopp boo xam ne bis bu nekk da ngay wax fii laa yaman tey et bu ëllëgee nag bu ma xoolee évaluer li ma def naa soq seqiwaat beneen jéego maanaam dolli ko ci wàllu yàlla dolli ko ci wàllu xam-xam dolli ko ci wàllu defaru mooy muy irtiqaa bi ci boppam loolu lépp kon et mu nekk barab boo xam ne kon loolu moo taxan mu sos ko góor yàlla yi nga xam ne itam ñoom la àndaleen ñëw fi ak ñi ko fi fekk si ñëpp itam foofu la leen jaare ba ñu defaru mu wëlbatiku def ci ñoom lu tax ñu mën a defare mu yebal leen ci ay barab ci gox yi àdduna ñu dem fa di defar ña nekk muy loo xam ne loolu la woon et nekkin ne dëkk boo xam ne dafa doon ñaan mu nekk loo xam ne man faa lay nekk li kulli haadin muslim képp koo xam ne jullit nga boo xam ne jub ak jubbanti ko rek moo moo la ñor boo fi accès lépp luy jubbanti ak luy jubal dang ko fi fekk waaye wa mahraban min taati rajim waaye nekk loo xam ne dëkk la boo xam ne képp ko xam def ab safaan wala njubadi moo la tax a jóg itam da ngay daw Tuuba ndax boo ñëwee doo fi fekk benn palace wala espace buñ lay may ngay def ak njubadi doo fi fekk kenn ku lay seetaan di la bay bayal ngay def ak njubadi loola na dëkk bi mel noona waaye na nekkit loo xam ne matlab lay nekk li taat nay nekk maslak li subul tibaa yi waaye nekkita matrak li subul ibtidaa na nekk loo xam ne itam barab la boo xam ne boo fi nekkee na nekk loo xam ne day xëcc nit ñi ci ñuy topp sunna yonente bi sallallahu alayhi waaye nekk loo xam ne képp ku bëgg a def bidaa ak lu wute ak sunna rasulullahi da ngay daw tuubaa ndax duñ la seetaan nga def ko yooyu yëpp dafa nekk loo xam ne ak ñaan la goo xam ne ci biir stratégie sëriñ Abdoulaye bu xaadimu rasul mooy lépp loo xam ne lu mu bëgg taalibe yi ak njaboot yi mel na day jàkkaarloo ak sunu borom subhaanahu ñaan ko ko façon stratégie la ñaan ko sunu borom mu jàppandalal leen ko ngir nag ku ànd ak moom ku nekk tey sàkku ngërëm moom te di ko sàkkoo ci def lam bëgg nga xam ne lii nekk bëgg-bëggub sëriñ bi ba mu jaral ko mu consacré wu temps di ñaan yàlla lu ko ñor la nga bokk nag bu dee bëgg nga ko nag nga bëgg le ko loola wut wutale ko loola gàttandu ko leen loola ndax day wax ne ñaan gi moom sunu borom subhaanahu dongul na ko lam ci doon sàkku waaye nag ku ca bëgg a bokk danga ko ciy dimbale muy dëgg jóg gàttandu ko doo toog fa nga nekk naan na ma fa fekk doo ko won gannaaw naan na ma dab kon loola kenn ku nekk nag maanaam nga war a góorgóorlu ci maanaam bokk ci ñiy gàttandu ñaani sëriñ Touba yii ba ku xool rek gis mandargay nongu ñaan gi ci yow loolee nga xam ne moom la doon muslu it ku xool du ko gis lenn lu bokk ca loola loola muy muy taxawaay boo xam ne e kon mooy li nga xam ne moo nekk cosaanal dëkk bi e ñu sañc ko muy kon jaamu yàlla ku tege ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak dund diine ak dundal ko gannaaw boo xëy ne xam-xam mi wara a laltaay loolu yëpp nag moo ko war a jiitu sëriñ bi loolu moom la sance woon dëkk bi et ñi ñim àndalan comme ni ko waxee ñëpp itam ca loola lañ nekkan ak moom waaye loola nekk loo xam ne it et bi mu demee e lu jiitu muy fi jógee dafa ñaan borom subhanahu wa taala képp ku ko fi wuutu ci njaboot moo xam njaboot ci wàllu pas-pas wala njaboot ci wàllu pas-pas ak deret maanaam nga assurer continuité boobu te mooy waxab lanaa suriyatan tuddi mujja al amala bil alifi walaam wil assaale a yaa xadim man ak ñi ma àndal doon liggéey liggéey bii buñ demee ba wan ko gannaaw na nga nu may ay sët yoo xam ne dañ def seen yitte nag ci sàmm ko ak aar ko do bu wàññi du yàqu kon loolu kon sëñ Ablaye e mooy li nga xam ne mooy cosaanal dëkk bi et la la nga xam ne la ca def lépp ay détails ñëw na ca la mu wax ci wàllu sécurité ba li mu wax ci wàllu ku e, e, li nga xam ne moo mënta ñàkk ci biir dëkk bi ci jikko ak melokaan yu baax yoo xam ne ku fi dëkk moom nga war moom nga war a jikkoo ndax lu ci nekk lu ne te bu ko day ñaan ndax eh, kon ittewoo nga xam-xam gis nga ko waj alu daxban maskana taallum wa mawdi al fikriti wa tafahum na nekk bis boo barab boo xam ne barabu xam-xam la boo xam ne ñi fi nekk dañuy ittewoo xam-xam kon ku fi nekk ku nekk ci biir dëkk bi ah warugar la sa doom ju toll ci jàng nga dugal ko ci daara ñu jàngal ko yar ko ndax loolu mooy mën a tax maanaam lii sëriñ bi bëgg am ñu jàppale ko ci loola waaye wa mawdi al fikrati wa tafahum dafa nekk barab boo xam ne nit ñi dañuy war di concerté wu di xalaat di xool lan mooy doxal liggéey bi lan moo ci manqué lan moo ci dugg ci lu ci lu ci bokkutoon ak nan la ñuy def ba moytu loola ak nan lañuy def ba dëppoo ak sunu jamono ci li nga xam ne da koo andi ci ay défi ak i taxadiyaat yoo xam ne tey day xajamal liggéey sëriñ bi maanaam yan pexe ak yan matuwaay lañ war a jël ba mën a faire face loola loolu lépp mooy mawdi il wa tafahum nekk loo xam ne maskan al irshad lay nekk wa taalim waaye maskan al taswib lay nekk wa taalim muy li nga xam ne moom la e, muxaddamatul xidma def nekk bi barab boo xam ne dañ fiy jubbanti nit ñi waaye e, di leen fi defar ak di xamal li nga xam ne moo war a nekk seen wàccuwaay kon yooyu yëpp tey fa tabarakallahu mooy laltaay li nga xam ne moo war a nekk nag E, e, e, maanaam li nga xam ne mooy war a nekk yitte ku dëkk ci biir dëkk bi ndax moo nekkal li tax sëriñ bi sañ ci dëkk bi loola it la ñaan ku fi ñëw it ngay dund ak a dundal loola. jërëjëf sëriñ Xaadim yaakaar ni nga décrire yi dëkk bi. Hmm. leer na nañ ci li taxoon sëriñ bi sos ko. Hmm. jërëjëf Serigne Khadim. Mm-hmm. ci ni nga décrire euh, dëkk bu sell bi di tuubaa mm-hmm. leeral nga li taxoon Serigne bi sos ko. Mm-hmm. ak ni mu ko sose woon. ak li mu bëgg ko nekkee ci dëkk bu sell bi dafa mel ne bu ñuy wax plan directeur dëkk bi nga indi. dëgg ni ko Serigne bi tënkee ci Matlabul Fawzayni. dëgg la nga xam ne li taxoon mu sos ko. leeral na ko ci. wajalhu dëban yi ngay wax wajalhu wajalhu mhm. waaye itam wa maskana wa maskana mhm. mooy li mu bëgg mu am ci dëkk bi dëgg la te it nga wax lu am solo mooy ñi nga xam ne ñoo war a jëmmal loolu mhm. ñoo war a euh, matérialiser loolu nag mooy ñi nga xam ne ñoo dëkk ci dëkk bi ñoom ñoo war a jëmmal loolu dëgg la ci seen comportement waaye itam Euh, melo ci seen waxin. Mhm. ci seen jëfin. Mhm. nga xam ne ñoom ñooy représenté dëkk bi. dëgg la loolu kon dana tax. Hmm. xam-xam mi nga ci tudd di lu am solo loo xam ne sëñ bi da ko yitteel daf ko daf ko yitteel lool. Mhm. te daanaka mooy baas bi. dëgg la ndax yeneen yi ci des. nga hmm. xam ne al fannul maamaari lu mel ne wàllu urbanisme beeg. wàllu li mu ñaan ci ndox meeg wàllu assainissement beeg yooyu yëpp da ciy duggaale. Mm. yooyu yëpp nag pour mu mën a am. Mm. faw xam-xam moo koy jëmmal. dëgg la moo tax sëriñ bi teewoo xam-xam. Mm-hmm. ba Cheikh Mouhamadul Mountakha. Mm-hmm. xam loolu bëgg yéene jooju sëriñ bi amoon. Mm-hmm. te doon dox jëm ci. ay waajuram ay magam yu baax yi doon ci dox. mu fas yéene nag futteeku nag. jëmmal xam-xam moomu sëriñ bi doon def. dëgg nag ñun taalibe lan moo nu war ci defi boobu nga xam ne moom la Cheikh Mouhamadul Mountakha bëgg relever. ci wàllu xam-xam bi sëriñ bi kii ci dëkk bi hmm. ñun taalibe yi lan moonu war ci ban taxawaay lañ ci war a def e taxawaay bi xam nga e, Cheikh Abdullah e, li nga xam ne mooy sëriñ bi dafa tënk taxawaayu taalibe bi ci baat benn bu ñuy tuddee xitma bind nañ ci benn téere xam naa dana génn diir bu gàtt hmm. xitma liggéeyub sëriñ bi ak taxawaayu taalibe bi yëpp dañoo wax ne bu fekkante ne maanaam maanaam bâtiment la wala ab néeg mooy ñeenti kenu yi ko yi ko yi ko yi ko yi nga xam ne ñoo ko yanu mooy xitma liggéeyal sëriñ bi ci xam-xam liggéeyal sëriñ bi sa alal liggéeyal sëriñ bi ci sa waaye liggéeyal sëñ bi ci sa ay xalaat ay afkaar na yiira mm. yent yii mooy li nga xam ne mooy was yi nga xam ne ñoo composé baatu xitma kon liggéey bi Cheikh Mouhamadou Mourtada sant kon et ña ca war a jiitu fi ñu toll ci phase bi ñu toll mooy borom alal yi mm. ak borom doole yi bu ñu waxee borom alal yi fa tabarakallahu gis nañu e, lenn ci taalibe yi ñu teel a jóg pour wuy ji wooteb sëriñ bi am na benn kuréel boo xam ne sëñ bi tudde na leen turu kawe yoo xam ne ay doomi yoon wi la ñu yàlla jox alal ñu engagé pour ànd ak Cheikh Mouhamadoul Mountakha ci liggéey bi keroog bi ñuy dem yàlla baaxee na ma man ak ñoom ñoo ànd ci jataay bu jëkk ba ëpp ñu juróom benn nit ñoo biñ leen wanee liggéey bi ñoo tobbil seen bopp aw sas sëñ bi plan yi la leen wan ak benn bu ci nekk fas benn bu nekk lamu laaj ñu wéet xool ba lii ñu tobbil seen bopp aw sas doog a wéy nag di woo nag ñeneen ñi nga xam ne jàpp na ni ñoo war a bokk yéene ak pas-pas ngir ñu wuy si leen ca ba mu toll nee mu toll loola bañ ca demee ba ab diir gis nañ bokki dëkk bi am une parti ci yeneen borom yi alal dëkk bi yoo xam ne ñoom it jaar nañ foofa toggul seen bopp aw sas waaye teewut ba léegi xam nañu ne lu mat genn wàll wala sulu sub ñi nga xam ne tey mën nañ loola te war koo def ba léegi wuy seeguñ fekk seeguñ ñooña ñooñu it kon warugar la ci ñoom ñu ñëw fekk si ñooñu ndax xam nañ ne yoon wi e yàlla jox na ñi ko jaboote am na ci ñum tànn defal leen teraanga joo xam ne mën nañ cee liggéeyal yàlla liggéeyal ci lislaam liggéey boo xam ne lépp lu ñu sumb te alal di ko def war nañ ko mën a bañ a jëggaani fenn kon borom alal yi kon war nañoo phase bi ñu toll pour pour réalisation bi ñoom la ak nag borom xarala yi parce que itam yoon wi naka jekk noonu la woon tey bu dee lu ñuy tabax am na ay daayira yoo xam ne ay moolkat lañ am na ay daayira yoo xam ne ay ferrailleur lañ am nañ ay daayira yoo xam ne ay menuisier métallique lañ ñooñu ñëpp nag kenn ku ci nekk nag maanaa dañoo war a organiser wu seet dem ci sëriñ bi mu tobbi leen aw sas ñu xool phase bu ñu toll ñoom lan lañ ca war a def muy muy liggéey ci sa doole waaye borom xalaat yi yit noonu am na ñoo xam ne mënuñoo joxe benn dërëm waaye nag am nañ ay xalaat yu rafet yoo xam ne mën nañoo indi xalaat ba jëli boromi boromi alal yu ci mën a def xalaat ba indi boromi xarala yu ci mën a def xalaat ba indi li nga xam ne moo war a nekk perspective lee muy phase yi nekk ci sunu kanam nan lañ war a mën a def ba relever ko muy def yi nekk sunu kanam lool lépp kon soxla nañ ay yi xalaat kat yoo xam ne nëgëni sii lañ ci tàmbali xalaat jamono yi maa ngi ciy gisee ak kilifa yoo am solo yu yu yoon wi ñor lool te ay borom xam-xam yoo xam ne ci nan la ñuy def ba liggéey bi bu àggee itam ndax suñ mu taxaa wax na ko continuité liggéey bi liggéey bi tabax gi mooy li ci gën a yomb mais nag li nga xam ne moo tax ñuy tabax ah muy liggéey bi ci wàllu université ak hôpital loola mooy fonctionnement ba mooy mbir mi kon naga ni si itam am na ay réflexion yoo xam ne ñi am ay xalaat ci nan lañuy def continuité ñooñu itam soxla nañ seen xalaat yu teg ko waaye borom xam-xam yi nag doog a ñëw borom xam-xam yi mooy jàngalekati alxuraan yi jàngalekati xam-xam yi doomi daara yi ñoom itam et seenub liggéey am na liggéey bu rëy boo xam ne tàmbalee nañ ko ci programme yi ak nuñ koy xalaate waaye ñoom seenub liggéey day continuer kon kon ñooñu ñëpp kon kenn ku ci nekk da war a seet fa nga mane ndax it loolu moom la Cheikh Maul Moussa waxan ca Eh, bi mu njëkk a toog ak góor yàlla yi njëkk a jaayante ak moom loolu la leen wax da leen wax na ñeenti ñii nag e mboolem ñi yoon wi jaboote kenn ci maasiwul ñàkk yëpp ku amul xam-xam bëb diine am nga xam-xamu àdduna wata kullu ilmin bi manaafi in ya fii la waxan ñaari xam-xam yëpp lañ soxlawoo ku amul ñaari xam-xam yooyu am nga alal ku ko amul am nga doole wala xarala ku ko amul am nga ay xalaat yu rafet yoo mën a participer kon loola ñëpp dañ caa war a participer te xam ne et eh, la sëñ am sati jaxate waxan sëñ Abdul Ahad ba koy wax ne ko kat eh, ah gannaaw boo xam ne yéen ñi ànd ak sëriñ bi kat yéen a xam lim fi bàyyoon ci ay sémb eh, gannaaw jumaa ji nga xam ne sama mag yu baax yi ma jiitu lam ca santaane woon lépp def nañ ko ca nam ko bëggee woon ah léegi nag ba ma ñëw wuuti leen dama bëgg bala may koy sosal dara ma xam ndax bàyyi na fi waneen sembu woom ñu war a àggale wala déet siyam sëtu ne ko ah jumaa ji di caa gën a siiw waaye barab ba mu santaane jumaa ji la santaane woon jàngukaay boo xam ne daa wax ne bu noppee lam ca yéene kenn du génn di gàddaay di dem feneen di fuuti ab xam-xam ci réew mi waxuma sax doomi yoon wi waaye réew mi ci boppam ne fàggulan na ko ay téere yoo xam ne bari na bariwaay goo xam ne sax eh, ba mu ñëwee néegi ñetti néegi ràng yañ ko yañ ko yañ ko takkal te Balla Fally Dieng ak sëñ Aliou Touré ñoo ko takk mu bari lool mu ne ko xëy na jege gum jege ak ak dogal ba ba mu ñëwee sax moo tax am ca lu tasaaroo mm-hmm. loola ca la Cheikh Abdoul Ahad mu ne ko mbàkki bu sa yaxalan na jataay ba mm-hmm. boo demee ca moom du ñàkk ñu jox la ko ba mu demee sëñ Baaxir ñoom jox ko day ba muy noonu mu ko bindee ci dénkaan yi fi bàyyi ca la Cheikh Abdoul Ahad waxa ne kon damay barkeeloo néeg yi ci ñetti téeméeri million yi ma njëkk am ci xilaafa ki ma def ci kaggu mm-hmm. téere yam njëkke woon it ma yónni suñ Moodu Maamun ñang mu génn jëndi téere yooyu ñu fekk ci téere yi mu taalifan ndax Serigne Touba ci ak ñoram ak maandu tem téere bu mu taalif bu nekk wax na ndey ja wala baay ba wala maam ja kon nag andi ndey ak maam yooyee ñu dend ak seen doom yi sëriñ bi taalif defar naa day defar liggéey bi waaye du ko yàq daal di woolu ay borom xam-xam gis nga ci liñ doon wax woolu sëñ sëñ Maodo Touré bu sëñ Aadi sëriñ mbay sëriñ Moustapha Lo sëñ mu amut Mamoun Niang ñii mu tëj leen lu war a mat fukki fan ñu di ko référisiral ci yan maraaji lañ war a jëli yoo xam ne danañ ko mën a indi mu ànd ak lii te du wuute ak li nu mag ñi jàngalan ci yan réew lañ ko mën a amee ci fànn gu nekk ñu defal ko liste yi sëñ Modou Mamoun doog a jóg kon loola moo doon jéeg bu njëkk ba kon loola mu mel ni kon loola mooy continuité bi seex Cheikh Mouhamadoul Mourtada Mouhamadoul Mountakha bëgg a ñëw nag pour réaliser ko ñëpp war cee ànd ak moom ci ñeent yooyu nag ci alal xam-xam doole mais ak ay surtout ay xalaat waaw surtout loolu nag <coughs> euh, nga xam ne kon mën nañoo wax ne murid yi war nañoo jéem a takkaat seen digg bu baax te xam ne liggéey bi ni ko Cheikh Mouhamadou Mountakha waxee waaw laal suuf luy continuer la wër laal suuf te it au delà de université bi hmm. sëñ Cheikh Mouhamadou Mountakha projet yi dëkk bépp la wax ne la fa bëgg a relancer. xëy ah. moo ci jiitu. waaw waaye na lu wàll lu mel ne wàllu ndox mi. waaw ah. mi ñuy naan ak miita. Ah. nga xam ne assainissement bi. ak eau potable bi yëpp wax na ko. nga xam ne murid yi léegi war nañoo amat beneen jógin beneen dimention boo xamante ni la ñuy jógaat. pour nag jéem a matérialiser yii nga xam ne mooy bëgg-bëggi sëriñ bi ci dëkk yi xam nga euh, wax nga eau potable mm-hmm. wax nañu wax dëkk. booy wax sécurité sécurité ba santé ca la bokk mmh Cheikh Abdoulaye ba sëñ bi wax wan fil mmh wal balaaya kullaha mmh anha waaye wa tayib aklaha wa shurbaha ah. na mi ngi ñaan ci wàllu santé dëkk bi ñu aar sunu borom aar ko ci lépp loo xam ne catastrophe la ak i muy ay jàngoro yu tëb di dal ak a waaye mu ne nag maa ngi ñaan nag condition yeey tax loola mën a réunir mm. te mooy nit ñi di lekk-lekk gu set di naan eau potable ndox mu set mu amul benn microbe loola it maa ngi koy ñaan loolu nag ñu xam ne sa Ablaay loola du caagee ne loo xam ne bi mu ko ñaanee yàlla malaayika yi ñooy wàcc di ko réaliser di ñëw di dem ca sun marché be mm-hmm. di ñu ko organiser ñam wañ fay exposé ñu di ko jaay lee ñu di ko lal lee ñu di ko def ci ay vitre du caagee ni ñooy ñëw dañu ko organiser nan lañuy def ba ñam wa nekk wu sell woo xam ne ay microbe du ca nekk loola du caagee ni maanaam ay malaayika la yàlla wàcc ñuy ñëw dañu organiser cet ga fa war a war a am ak sell ga ak nañ war a contrôler lañ fay jaay tam jëm ci biir nit ñi moo xam lu ñuy lu ñuy lekk la wala lu ñuy naan la cat ga ca war a am ak norme yee ca war a am malaayika yi duñ wàcc ay doomu aadama ñoo ko war a def comme bëgg-bëggu sëñ bi nag tam daf ko rabtu ci wér gi xam nañ ne science wane na ne wér yaram mi ngi aju ci dépendre ci nit ñi li ñuy lekk set li ñuy naan set kon loolu kon loolu lépp kon muy eau potable bi ak loolu lépp daf ko ñaanaale lekk gi set maanaam li nga xam ne itam mooy li ñuy naan set kon loolu lépp liggéey la boo xam ne ay taxawaay la yoo xam ne tey sëriñ bi da ko fagguwaale woon te ñoo ko war a gàttandoo am ci loo xam ne ci liggéey bi la boo xam ne tey formation lay doon former ñi war a taxaw ci loolu waaye itte itam ci loolu ci kaw barab yi nga xam ne yëpp fi exposé loolu waaye eh, comme ni nga ko waxee yemul ci loolu waaye eh, ku wax sëñ bi wax na ci wàllu wax projet yu toll ni wax e maanaa gis nga ko ma maanaa ñaan na dëkk bi nekk dëkk boo xam ne dëkk wërsëg la mm-hmm. na fi tasaare wërsëg wu yaatu waaye wu lew ta sell mm-hmm. kon xam na ne lim fi simb ci ay kii yëpp mënta ñàkk a ànd mm-hmm. ak maanaa am-am am-am nag li koy bi bi mën a bi mën a liggéeyal islam mooy am-am bu sell kon orienté ni nit ñi ñuy yëngutu ci lépp loo xam ne bu ñaanee wërsëg nag kon orienté ñu kenn ku nekk lay mayee wërsëg nga yëngutu ci ah. ah ah résultat bi parce que du wërta nekk nit ñoo xam ne dañuy tëdd rek di nelaw ah ah ah waris xacala atyabal xalaali fil yusri wala usri ala ala tawaali mhm. mooy dëkk bi alal wi wërsëg bi na ko def muy la gën a sell gën a lew mhm. ci moo xam bu nit ñi nekk ci jafe-jafe wala ñu nekk ci waxtu woo xam ne waxtu crise la kiris ba ak métit yo bu mu leen yóbbee ñuy yëngutu ci loo xam ne léwut wala dëgërut wala sellut hmm. kon orienté nañu ci liggéey nee na lii ma bëgg lépp di ko ñaan ci dëkk bi nag alal koy maye alal nag liggéey koy maye hmm. waaye nag liggéey ba ko war a maye mooy liggéey bu sell tiju kon hmm. orienté na waa Touba ci ndaw ñi ñu bëgg kon orienté na itam ñu taxawal ay infrastructure ay barabi liggéeyukaay liggéeyukaay kon dëkk bi war naa am ay barab yu ndaw yi di liggéey te loolu daf koo jàngale daf koo jàngale da maa ngi koy wax ci période njaarim bi njaarim njaarim ab tool amu amutoon li wër njaarim état état bu njaarim bi maa ngi ko ciy wax mhm. atelier yooyu fa nekkat mooy da doon jàngale wax ne formation professionnelle lu mënta ñàkk la ah dem naa dema dem ba mares na ko borom tey mares na ko transformé ay fabri ak usine ak unité yoo xam ne tey vraiment nit ñi dañ ciy bëri liggéey kon orienté ñu mën ñu liggéey ndaw ñi waaye tëdd rek ah kenn koo xam ne day liggéey ba nopp yor lu mat fukki nit ak koo xam ne tey dafa yor këram yor ay jéegam ci biir këram di jox bëgg di joxe dépense saa yu xëyee am lu ko war te amul lu muy mën a loo mën a wax ne ca lay xëy wala ca lay ca lay gont lu may wéeru rek ci nit ñi déedéet sëñ bi wax na ne danger bi gën a rëy sunu borom nee na danger ak épidémie bi gën a garaaw ci buy faagaagal aw xeet mooy ndaw lu toll ci liggéey te amutum xëy amutum gont ndaw lu yaatu ci jamono ji nag ah, mi ngi noonu amal ba amal bataalut wa lu umur min xayri maa yuf lu mu ceg fadaauhu yadurru fadaauhu yadurru mooy mhm. jàngoro la joo xam ne mhm. nee na moom jàngoro la waaye nekk yëmut ci jàngoro waaye jàngoro la joo xam ne day faagaagal aw askan te loolu dafa yaatu kon loolu lépp sëriñ bi daf cee wax. wat sëriñ Xaadim foofu fu am solo la. ah ndax léegi dafa mel ne loolu ab phénomène la. Ah. da gis ñoo xam ne doo xam benn mecc lañuy ñuy liggéeyee amul. lu dul wër di ñaanaatu ba bëgg koo def léegi sax mu doon métier. ay ndaw ci loo xam ne dafa wuute ak njàngaleem sëriñ. déet xam nga sëriñ bi ci boppam. E, boo ko seetee ci majmuwa ci jataayam yu sell yi mu doon jàngalee di muy wax e, xeeti alal yi nga xam ne ab jullit da ko war a moytu ndax lekkuwut du alali jullit su'aalu as su'aal bila xaajatin shadida ca la bokk mm-hmm. muy tàllal sa loxo laaj ci lu dul nga xam ne da nga caa am aajo ju tar ju mënta ñàkk aajo ju tar ju ñàkk nag ah waxan na ko xam nga bi muy yebal waa kër Sëñ Babacar Cargaan e, ca Ndakaaru bi ko Sëñ Babacar Cargaan kat e, dama doon laaj kat ndax liggéey noor bi dañoo ëpp dongo yi dongo yi daf leen a ëpp xam nga dongo yi buñ nekk ci daara yi tërbiyee ba noor jot dañuy baaxoo ñëw di sàkket ak rabat ak fete ñekk liggéey liggéeyum noor mm-hmm. ba ruuj jot ñu delluwaat ca tool ya mu ne ko man nag samay dongo dañoo ëpp doole liggéeyum noor bi te bëgguma ñuy taxawàllu ma doon laaj ndax fi ñuy wax ndakaaru mën nañ faa dem di daan seen doole ba ruuj jot ñu dellusiwaat siwaat mu ne ko waaw waaye nañ ñëw ma dénk leen ñee mu bind wallazi jaala lakum al arda zalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi nusur pour andi leen aaya bi wane ne julit bi moom tàggatal nañ ko suuf fépp mu yaatu fépp fum mën a amee teraanga rek ak sutura su lew rek foofa barabama kon luñ ko lii ak laa ci ay barab wala ay micc bi leen di dénk mu leen bu ngeen na ngeen xam li leen yóbbu nangeen ngeen fexe ba bu leen kenn soppi bu leen lenn soppi bu leen jaxasoo ak kenn kudul da ngeen di dollikoo ci moom ak diine ak njub ak yitte ci li leen tax a jóg mu yóbbal bu njëkk bi waaye liggéey bu ñu leen jox nag ta la leen tax a jóg ngeen man ko caa am tamu dagan lew métti liggéey ba wala xeebug liggéey gu bu mu jaar seen digganteeg moom ndax liggéey bu metti te xeebu kan moo gën ci as gor wala jullit bu toll ci sakku ngërëmul yàlla tàllal ay loxo di laaj ndax loolu ñett ko sañte kenn duggante kenn muy ndaw loo xam ne wala mukallaf moo xam ne ak laago dal na ko ba la ko war ci boppam war ko ci ak njabootam mënu ko wutal boppam kooku nee na ko bu fekkee ne jullit yi def nañ lañ war a def ci moom waruñoo xaar sax bu deen laaj ñoo ko war a wuti ci boppam moo xam mag la wala ndaw la wala mag moo xam ne dem na ba dooleem jeex ta la ko waran ci boppam wàcc ko te yàlla joxu ko njaboot gu ko mën a wutu ci boppam kooku it maanaam jullit yi buñ defee lañ war a def xaaruñu bu deen laaj ñoo ko war a foo foofee wuutu ko ci boppam suñ ko deful nag sañ na leena a sàkku ci ñoom dimbalum ko ku ñetteel ka nag mooy koo xam ne moom day jàllale rek mooy góor yàlla gu jóg jëm ci boroom moom di sumbal waxtu wu nekk yàlla ay sumb yoo xam ne ala la koy àggale ña laxasaayu ànd ak moom jaayante ak moom ànd ak ñoom ci liggéey boobu lu sumbal yàlla lu nekk moom it man na war na leen a tàllal loxo ne leen andi leen ma dugal leen ci muy jumaa ju ñuy war a tabax wala université bii wala laneen nga xam ne kooka moom jàlle la la mu ne ku dul kooka nag loolu def ko xam nga ñoom ñett yooyu duñ ci kenn te ne ko yéen ñett yi du ngeen ci kenn donc kon léegi bu ñu gisee nag ay ndaw yoo xam ne sax waxuma la maanaa dañoo toll ci maanaa war liggéey war a jàngi war a liggéey mën a am lu ñu war a mën a suturloo ndax pexe yaa ngi fi pëttuñu defu defuñu dara te koo ci laaj amul lenn lu la mën a waxee ne moom lay xëy di ko def wala moom lay gont di ko def te nag la nga xam ne moom la ñuy xëyee ka gontu di am war a am bëgg naa am sax lu ko ëpp bëgg naa am kër gu baax bëgg naa am ay soxna yu baax bëgg nay lekk lu baax di solu te xëyul gontul li sëñ bi wax fada uhu yeddul épidémie la bu garaaw boo xam ne ci li gën a ci aw askan la kon sëriñ bi kon ñëw ci loolu ci dëkk bi ñaan E ñi fi ñi nekk ne yàlla na yàlla tasaare wax maanaa maanaa wërsëg wu yaatu waaye na nekk wu lew wërsëg wu yaatu te lew nag te amin wa jaar yoon liggéey moo koy maye moo tax mu ne wa talabul xalaali kon fardun yantami li kulli muslimin bi xëyri waxee kon nag sakku alal ju lew farata la bu yàlla tegal ci bépp jullit bu mën doon mu kon iltamisul xalaala kulla saa ndax bi aklihi yabdul huda wa taa kon na ngeen di sàkku lu lew ndax ak sàkku lu lew ak consommé lu lew ak wut ngërëmal yàlla ci lu lew moo la mën a may ak njub moo la may mën a may wàccuwaay ci biir société ak milieu bi nga nekk muy penc bi nga nekk kon loolu lépp sëñ bi jàngale ko muy soññee ci wàllu liggéey kon ku dëkk ci dëkk bi war a bàyyi xel ci loolu waaye eh, mu wax lu am solo loo xam ne dama ko gis ci biir euh, euh, kii bi muy lu yéeme ci xam nga bi wax ci dëkk bi ci wàllu sécurité bi wadrib suraadi suraadiqaati xizbika hala daariyuma fi a jamian musjala wal taxmi daariyi an il wal fisqi wal baatili i duhuri wajal xarimana ariman amina wa kun bi hizzi kafiinam damina ah. nga seet nag eh, yooyu mu dajale foofu yooyu yëpp wax ko si am lay muy wàllu sécurité kon taxawaay bi nga xam ne kon waa dëkk bi war nañ ko am ci aar dëkk bi ci wàllu sécurité parce que yëpp boo koy tal da am sécurité ci fexe lépp loo xam ne ak caay-caay la wala ak duubute kenn du ko def kenn du ko jëlee faneen ci biti di ko fi indi kon war nañoo tànn chef de yi chef du yi pour ñoo bokk ak chef de quartier ak chef du village yi nekk ci yeneen quartier yi war nañuy contrôler bu baax a baax gan ñi nga xam ne dañoo bàyyi ko ci yeneen dëkk andaale seeni aada ak seeni mbir man koo andaale ku ñëw bu nekk ñu boo agsee ñu xamal lal dëkk bi niñ fi war a nekke jamono yi dama sama yoon wale dama jóge ndakaaru aksi waxtu wi dégg rek lu mel ni ay dënd ci sama mbeddu kër ma génn taxaw ci fenêtre bi fekk lu mat juróom-ñaari xale yoo xam ne eh, poti euh, kii peinture yu jeex yi moom lañu tëgg yor ay galen mel ni ay sabar lañu yor di tëgg tëgg mu xumb moo xam ne kéemaan la xale yu jigéen yi nekk foofu yépp daal di commencé di génn ma génn ne waa lii ñu ne ma ay gan lañ ne ma kër gële e ay xale yu fi ñëw xuma dañ fee vacances xuma mais dakaar lañ jóge mhm. xam ne maa sol sama dal dem ba kii dàq leen waaye ba ma leen dàq it bañ jóge foofu maa ngi ba may ci boori côté forage bàyyi laat bi maa ngi leen fay déggal xam nga lu mel noonu ñooñu xam nga tey buñ ñëwoon ba ba ba ba installé ba dëkk fa te loolu dafa bari kon yooyu yëpp tey nekk loo xam ne ay ay mbir la yoo xam ne dañ cee war a taxaw bu baax a baax ndax sëñ bi ci moom lépp loo xam ne lu jëm ci wàllu sécurité ndax bi muy wax waj al wal taj al bi muy wax wal aju daxban wal taj wal taj al wal taj waj al u daaban saata limtilaa'i nuuran wa rahmatan bil intihaa'i saata limtilaa'i nuuran éclairage public mm-hmm. dëkk bi na leer parce que boo amul sécurité tukki mm-hmm. mooy dëkk bi na nekk leer go ànd ak yërmande loolu lépp ci nekk ci loo xam ne dafa jëm ci wàllu sécurité waaye nga ñëw nag ci yi nga xam ne yëpp tey mooy civilisation occidentale muy aada ak habitude tubaab yi mm-hmm. ni mën a yàqe ab société xoolal ba mu ci wax wa najjinaa min sharri haadha zamani mm-hmm. wa zari xayrihi mm-hmm. <laughs> ah, ah. jamono yi ñëw wa kullu fitani xool wal taqinaa sharra nasara wal yahud wa sara iblisa wa kulli si jawut kon occidentaux yeeg ñëw na pour wax na jamonoom aman na ay ay yu bari yu ñu transporté euh, faneen andi ko waaye xam na ne jamono jii ñëwit mooy yées mm-hmm. moo tax mu ne a ah, min charri asa zamani wa zari xayri i ak ay beneen jamono budul bii muy jamono yi ñëw mm-hmm. wal taqina charra nazara wal yahud wa charra iblisa wa kulli si joot mm-hmm. wala wa sar man yarkabu saf silaay ah léegi tey boo demee ay Niger boor yu bëree bëri tey muy insécurité mhm. avion de guerre yi sous raison bi xoolal li ciy xew mhm. ah yoo xam ne benn ku yor benn hélicoptère rek ñëw tiim benn kii rek mhm. loolu lépp tey wasara maa yettiiru sa jonaaxi ah loolu lépp xoolal waaye nag bi garaaw tey mooy wasara man yan fusu fil uqudi wasara saa iri wasi juudi tey seetal tey njabar li muy yàq ci pas-pas di ko yàq ci jikko di ko yàq ci pénc di ko yàq ci ànd bare na fu jabar am bu nekk bis bu nekk lu gàtt-gàtt mbooloo ci ay jigéen danañ ko fréquenté yoo xam ne soxla fañ fa yóbbu mooy seen wujj wañ nekkal lu ko génne ca kër ga ba des fa moom yéetoo këram am na ñoo xam ne itam la leen fay yóbbu mooy ku ñu seqal ab liggéey ñaan mu tëlbati wala mu def ay bêtises bañ daqe ko ci liggéey bi ngir mu mën koo wuutu yor palaas ba nit ñi dem nañoo dem bay wàll ci wàllu pas-pas tey dëkk bu mel ni dëkk bii nga xam ne ñi ñi doon gàddaay di fi ñëw rawale seen pas-pas ak seen jikko moo tax lépp lu ñu soxlawoo ci wàllu yàlla yi tàllal ay loxo yàlla lay ñaan wala ñu nekk ci barab yi nitu yàlla yii tàllal fa gëm ne ñu fa ñaan yàlla dañ ko defal bu ñu demee ba léegi ay ñu fi dëkk ñoo xam ne tey ñu amatee soxla duñ ñëw ci barab yi nitu yàlla yi waaye ci maaman la ñuy dem ndax jàpp nañ ne jabar bi fas ak a tufli ak a suul moo leen mën a faj kooku kon pas-pas amatu fa ñu dema dema dem ba loole mu ci doon wax ñaan sunu borom musal dëkk bi musal ñi dëkk biir ci ari jabarkat yi fas ak a xaaw waaye ak ay jabarkat yi xaatima ka def lépp loo xam ne lu jëm ci ak njabar la ngir li mën a yàq kon buñ demee tey ba loolee mu doon wax loolu lépp tey aksi gis ay bokk gu yàq goo xam ne ak njabar ko yàq sëy yu tas yoo xam ne ak njabar ko yàq ñu xëy tëlbati ñoo xam ne ak njabar leen yóbbee loola ñu xëy wan gannaaw sérub liggéey ñoo xam ne ak njabar ñoo leen ko yónnee lu baree bari yàq pas-pas yi nit ñi ba nit ñi gëmatuñ yàlla loola yëmatuñ si Ablaay ci di ko def loolu ku dem ba di ko def ci dëkk bu toll ni bii borom ñaan di aaree ko ci nii itam da ko war a làqatu ba da mm. bu ko def ko discrètement mais buñ demee ba jumtukaay yi nga xam ne tey maanaam li war a nekkam muy rajo wala télévision wala site bu nekk ci biir dëkk bi sa préoccupation numéro un wala sa programme numéro un mooy tasaare njàngaleem sëriñ bi loolu moo war a doon sa itte loo cee dolliku ci lu lay may am koom te mu sell te lew comme ni nga ko waxee nga def ko waaye bu ñu demee ba léegi tey la ëpp ci programme yooyu mooy publicité ay jabar yooyu tey nga xam ne dañuy dem bay di woote di campagne di propagande ñu di leen campagnal ci dëkk bi lu garaaw la lu garaaw garaaw la te sëñ bi wax ci lii nga xare tey nii ngeen aare tey penc mi ba nga xam ne kenn du fi exposé lu mel noonu war a na aare dañ war a aare dëkk bi yëpp mais aare ko nag e maanaam pas-pas yi ñi ci ñëpp ñoo xam ne dañuy jóg di propagande ak campagne di def loolu ba ku ko mënta ñàkk a def it discrètement nga koy def ci secret sa biir kër waaye nag doo nekk di ko publicité ci jumtukaay yi nga xam ne li war a nekkan taxawaay mooy tasaare njàngalim diine yooyu yëpp kon di yoo xam ne tey ay mbir la yoo xam ne tey fokk dama jàpp ne ay matuwaay e, yu moo ci war a am ndax dëkk bi e, dafa bokk dafa nekk dëkk boo xam dafa am particularité boo xam ne e, borom wax dëgg yàlla waxuma sax ci wàllu baatin waaye ci wàllu adduna képp tey titre foncier la statut titre foncier la kër la te loolu lépp loolu la ci borom bëggat ah loolu la ci sunu borom fayee borom muy loo xam ne tey ab kër la kër nag wax dëgg yàlla kër war fee sañ a def loo xam ne lu neexul borom kër ga rawatina nga di ko manifester donc yooyu yëpp kon eh, muy loo xam ne daal wax dëgg yàlla eh, taxawaay la yoo xam ne gis naa ne eh, yu ñu war a taxawaal la pour ni nga ko waxee matérialiser li nga xam ne moo nekk njàngaleem eh, sëriñ bi yooyu nag jàpp naa ne sëriñ Xaadim ay décision fort lañ ci war a lañ ci war a jël dëgg la ñu ngi ci benn bu am solo mm. muy ñi nga xamante ni ay borom bi sañ-sañ lañ ci dëkk bi ñu leen di wooye ay chef de village ñu dénk leen ay quartier waaw ñooñu d'abord am mm. nañ benn formation buñ leen war a defal ci loolu ñuy def ay enquête de moralité koo xam ne ñëw na ndax maa ngi bu ma fàttali ko man ba ma gënee doon gone mm. gan gu masaan ñëw ci dëkk bi hmm. daanañ taal ci rajo jumaa ji wax ne waaw na ngeen wattandiku kat gan ñëw na ci dëkk bi waaw loola loola lu mel noona nga xam ne ak hmm. kenn demalati nit ñi di foogu waaw de village yi ñoom ak chef de quartier yi ñoo war a tàmbali njëkk ci liggéey boobu nga xam ne képp kuñ gisati hmm. ci quartier muy def yooyu ndax parce que li nga wax ni phénomène la boo xam ne bis bu seen ñu gis ñu jàpp ay njabarkat yuy def ay tooxi ci dëkk bi waaw dëgg waaw ci dëkk bi hmm. loolu itam warees na koo gën mën a bàyyi xel bu baax a baax jàpp naa ne war naa war naa weesu fii sax mais ay forte décision lañ ci war a jël ndax loolu moom méngoo wut ak dëkk bi dëgg la xam nga fi ne damaa jàpp ne bokk na ci programme bi nga xam ne moo xam muxadamatul xidma moo xam raw doya in moo xam safinatul amaan moo xam Touba ca kanam moo xam jumtukaay yi nga xam ne ñoo taxaw pour aar dëkk bi ak njàngalem sëriñ bi kan moo ci proposé loolu waaye eh, jaadu na chef du quartier ak chef du yëpp am formation buñ leen di defal mm-hmm. xalaat daw i Matlabul Fawzayni mm-hmm. muy jël Matlabul Fawzayni mm-hmm. eh, maanaam di ko tekki tekkiin wu leer tànn ci ay bayit yoo xam ne dañ koy tekki ci olof bind ko ci langue nationale yëpp ba mu leer naññi waaye di toog ak ñoom di leen ci defal ay séminaire ci taxawaay bi nga xam ne tey képp koo xam ne jëwriñ nga ñu dénk la nga am benn responsabilité ci dëkk bi moo xam chef de quartier nga moo xam chef de village nga moo xam laneen nga yore ci dëkk bi nga xam borom dëkk bi lan la bëggan ci dëkk bi ak lan la bañ jox la boo xam ne it ne la képp koo xam ne ku ñëw di ku bees tey gan goo xam ne dafa gàddaay ñëw bu agsee na nga def benn science ak moom xamal ko ne kat dëkk bi kat lii ak lii ak lii ak borom kii say njaboot ak lii ak yooyu muy règlement intérieur boo xam ne lii la kon nag dañoo bëgg nga bàyyi xel ci loola ci col gi ci am na loo xam ne kat xewu fa lekk ba regg rek say say say say say jigéen bëgg kontaan rek dëpp dëpp bool ba di di di tëgg ak a fecci loolu amul ci dëkk bi yi nga xam ne yëpp tey Cheikh Abdoul Ahad ak rakkam ñoo ko bindan teñ aaye ko lépp loola ku ñëw kenn ku nekk maanaam ñu leeral la ko ne lii dañ ko fiy bañ mm-hmm. loolu dafa nekk loo xam ne lu warugar la mm-hmm. waaye nag am ñoo xam ne dañuy jóg maanaam di contrôler loolu ndax léeg-léeg fi mu toll yu bari aaye nañ ko waaye da ngay dekki ba guddi ci place yi gën a reculé nga dégg ay am am tëgg mm-hmm. foo xam ne yow da lay ne foofa contrôle dafa amul nga xam ne boo àggeen dawal sa oto ba àgg ak sabar nga fay fekk ñuy fecc wala ñuy bëre wala ñuy def leneen loolu lépp nag dafa mel ni dafa maanaam ay taxawaay la yoo xam ne tey eh, comme responsabilité ci chef de quartier yañ koy defi seen barab la ta te luñ fay def mu umpu leen fuñ fa ne kundal kundul tëgg ñoom dëgg nañ ko kon ñooyu ñëpp itam eh, maanaam wax leen ko ba nga xam ne tey bu lu mel noonu amee ku dem sax doo dem ci ñooñu mais chef de quartier bi ci boppam ngay wax ne ko nag benn nga taxaw ci lii ah mënoo ko nag ñu jëlee la samp kaneen ndax duñ nangu kuy cautionner lu mel noonu donc yooyu yëpp dafa nekk loo xam ne wax dëgg yàlla ci dëkk bi ay taxawaay la yoo xam ne yuñ ci war a mën a am e, naka noona maa ngi gis ci xoolal ci même fii rek xam nga fi muy ñaane lii bu demee bay wax naa wa sawjatan saalihatan tuinu xala tuqaa wal bir yaa moyinu bay du yaatu am solo dem na ba sëñ bi jàngal na e, kuy képp kuy takk soxna di ko fi indi wala nga defi indi soxna wala sa njaboot da fi moyto indi njaboot goo xam ne bu ñëwee dañuy yàq nja ñi fi nekk ay comportement ak melokaan yoo xam ne buñ accès dañuy yàq ñi fi nekk kon so ah waaw soxna sooy takk su ne mhm. na ko takk ci critères yoo xam ne bu ñëwee tuinu ala tuqaa maanaam day jàpp da lay jàppale yow borom kër bi ak sa njaboot ak borom dëkk bi ak li borom dëkk bi bëgg ci lépp loo xam ne mooy melokaan ak comportement bi jigéen war a yor ci ak njub ak maandu ak sàmm ci ak colam ak ay waxin ak i definam parce que tuinu la wax tuinu mhm. tuinu ala tuxaawal birri kon ah loolu kon kon loolu kenn ku ne dafa war a bàyyi xel ci ne kon soxna soxna yi loo loolu la war a doon kon képp koo xam ne dafay ñëw te yore beneen comportement boo xam ne safaanu to lay def waaye to inu ci laneen ci ak mbewte ak bon ak xëtt kii sëñ bi loola itam ñu xam ne loolay ku ñu war a teel a avertir ci lu mel noonu war na ko loolu méngoowul kon ku fi andi soxna ku nekk di ko takk ah waroo xool rek taar ba waroo xool yooyu war nga caa sàmmonte ak loola condition ya nga koy waxee nañ ko ah Touba nag laa lay yóbbu Ndakaaru nga koy jëlee wala Kaolack wala feneen ah Touba de laa lay yóbbu nag nangama nangama nangama nangama yu baree bari nag yoo doon kii kat da koy bàyyi waaye nag loola dafay am solo comme ni ma ko waxee woon ci waxtaan yalay weesu ah ñi nga xam ne ñooy waa dëkk bi ci seen bopp maanaa jiitu ca loola waaw loolu moom ñoo war a jiitu ci loolu xam ne sëriñ bi kat loolu la ñaanal muy njaboot gi ci seen bopp parce que xam na ni eh, jabar soxna soo xam ne du la dimbale ci li nga xam ne mooy ak ragal yàlla ak njub ak baax ak defaru du la yaral sa doom ca lu mel noona kon nag soxna sa lay mën a dimbale noola eh, ca la a dimbale ci wàllu googu mooy ki nga xam ne moom la ñuy séentu mu yar sa doom yar bu baax kon yooyu yëpp kon sëñ bi Eh, dafa nekk yu am solo yoo xam ne eh, sëñ bi da koo andi te mu ëmb lépp mm-hmm. eh, te ñu waran ci doon bàyyi xel bu baax a baax pour daal aar dëkk bi ak wor may dëkk bi ci wàll yëpp. tubarkal tubarkal sëñ Xaadim mm-hmm. mel ne def nañ taamul boo am solo. Mm-hmm. Euh, dëkk bi hmm. ak nekkin wi nga xam ne moom lañ fi war a nekkee hmm. ak li nga xam ne moom la borom bëgg ci dëkk bi hmm. xam naa euh, di tomb bu am solo boo xam ne bu bu bu mat a yaatal la euh, bërki démb rek maa ngi waxtaan ak sama benn wëlëre boo xam ne lu mel noonu daf koo mas a gaar dafa mas génn dem ci benn barab ci benn dëkk ñëw waxtu julli jot rek ñu ne ko doxal jiitu yow yaa jóge Touba ah. te fekk moom ndeysaan li mu waroon a gànnaayoo ci allahu ci ci wàllu xam-xamu faratee jëmmam xamu eh, eh. mu jóge ci nag ne ma nag damay futteeku lépp loo xam ne war naa ko xam ci sama faratee jëmmam dama koy xam ndax damaa génn représenté Touba te matuma ko. allahu akbar muy wax ju am solo. allahu akbar dëkk ci dëkk bi nag war na koo bàyyi. allahu akbar ndax boo génnee moom léegi jëmmi dëkk bi rek lay xoole. ak jëmmi sëriñ moom lañ lay xoole moom lañ lay xoole. moom lañ lay xoole kon la gën a gàtt ci nga man ko war koo man ci sa mhm. faratee war nga ko war ngaa góorgóorlu mhm. ci jëm ci jëm koo man dëgg la am solo loo xam ne dëgg la dëgg la dëgg dëkk ci dëkk bi war na ko bàyyi wallaay wallaay ku dëkk ci dëkk bi en tout cas daal loolu daal mbokk moom bañ bañ bañ bañ koo dal bañ koo dal wallaay sëñ Ablaye wax nga dëgg te te dëgg la dëgg la dëgg la bu ko defee ñu dem ci beneen tomb bi ci des nag mhm. muy nag sëriñ bi nag xam nañ ne ni mu sañce Touba mhm. noonu la sañce woon yeneen dëkk muy wax Daaru Salaam Daarul Mannaan dëkk yu baree bari waaye lenn rek a taxoon mu sañc ko mooy sori mbumbaay mi mhm. ak coow li mhm. ngir mën a yar taalibe yi mhm. ci biir taalibe yooyu nag am na ay góor am na ay jigéen léegi ñu bare bare nag dañuy bëgg waxtaane rek euh, ñi toppoon sëriñ bi di di di joxe ay exemple ci sëriñ Mbàkke Busoog sëriñ ñeneen euh, sëñ Daam Abdourahman Lo sëñ waaye dañuy fàtte am na sayidaatun xawla Cheikh al Xadim <laughs> soxna yoo xam ne nag sëriñ bi daf leen a yar maa ngi fàttaliku bëy wu am solo wu sëriñ Abibu mbakke mii euh, doon taggee Serigne Mbacke Bousso mhm. euh, naan ko cheikhuna Mbacke Bousso bahru ulumi mhm. faaxirin laa turaddu anhu dilaa u mhm. allama annaasa diinahum wa hudaahum wa hmm. ka anna risa wa ka anna rijaala fiihi nisaa'u wa hmm. ka anna rijaala fiihi nisaa'u allahu akbar loolu di lu am solo ne hmm. bëgg naa itam suñ mbokk yi soxna yi ñu bàyyi xel ne itam sëriñ bi noonu mu amee ay modèle ci mag ñi ko toppoon di ay góor noonu la amee ay modèle ci ay mag ñoo xam ne magi jigéen lañ ñoo xam ne ay xaafisa ñu woon ñu mokkal alxuraan daan jàngale daan jàngale diine daan yare doon ay modèle yu ñu war a bàyyi xel sëñ Xaadim waa xam nga loolu euh, fatabarak la réflexion la boo xam ne boo gisee ren sax raw du rayaxiin ci programme màggal gi conférence màggal gi ñu jaglee leen ko loolu mm-hmm. lii moom moo waral ndax bu ñuy wax rek ari yàlla awla cheikh góor yàlla ya ànd nag moom la ñuy wax waaye jigéen yàlla ya ànd nag moom mm-hmm. dañ leen di fàtte te xamuñu ne fa góor yàlla ya taxawan rek ci pas-pas ak yitti ci jaayante ak sëriñ bi fa ay jigéen ya jamononte woon ñoom jayante ak sëriñ bi te rafetal seenu jaayante bu baax nekk ñoo xam ne ña ca tollu ca jàng dañoo jàng alxuraan doon dem daara comme ni ko góor ñi doon defe xam nga ne loolu ci wooteb sëriñ bi eh, bokk na ci li ci yees ci yeesal gim ci andi ci loo xam ne amutoon lu ko jiitu ndax li ñu xamante sëriñ Abdoulahi mooy eh, xam nañu doomu soxna ji doomam toll ci jàng alquran muy doom ji góor moom mën na ko tënk yóbbu ko daara hmm. wax sëñ daara ba ne ko moom daal loo ci def rek neex na ma waaye miinee sutoon amutoon sax maanaam jigéen ju toll foofa muy rakkam bu jigéen wala commencé ku jigéen nga di ko taxañ ma mit di ko yóbbu ca daara muy jàng ca yooyu jamono mm. boo dee doomi soxna daal yàlla man na laa defal tawfiix boo yore daar ci biir kër nga jàngal ko xëy na ci biir kër gi waaye boo ko mënta jàngal moom du jàng kon loolu seexal xadim ci daaray daaru alimul xabir ji xam nañ ne njaboot ga fa nekkan ci ay góor njaboot ga fa nekkan ci ay jigéen sax dañuy daanaka booy seet ñoo ëpp wala ñoo tolloo woon muy loo xam ne tey buñ ko dee wax moom tey manqué na kéemaan ndax bi daara moderne yeeg yooyu xew waaye ca yooyu jamono mm-hmm. loola kenn gisu ko woon fenn ci biir Sénégal ba mu daj ñooña tollu ci jàng alquran ñu jóbbu ñu jàng alquran ba mokkal jàng xam-xamu diine ba taalif gis nga taalif yi nga xam taalif nañ ko soxna moom ak soxna may kubra soxna may suxra kenn ku ci nekk bind nga loo xam ne ci wàllu gis nga soxna moom yi natu xasidaam bi mu bind ci wàllu maanaa taxaara ci boppam lu yéemee noonu kéemaan la maanaa maanaa maanaa nga xam ne eh, eh, boole ca aman yitte ju toll ni ku ñëw këram di ak sa bàjjan bala ngay jàng togg ak fóot ak hmm. baleeg def lenn li priorité ba muy xasida gi na nga ko mokkal moom ba noppi mooy sa priorité boo ko mokkalee ba noppi ñu doog laa tàggat ci leen li ci des te loola di loo xam ne naka noon noona magam yi nga xam ne ñoo ko jiitu woon di soxna ah, soxna Fatimatu soxna Fatija ak soxna Astu Mbàkke Mbàkke Kajoor ak ñi nga xam ne ñoo ñëpp soxna eh, Fatim Mbàkke Pondé bi ak naka noona soxna eh, Mariama Kunta ak ñooñu nga xam ne ñoo nekkan mag ñi ci loolu lañ doon ak ñeneen nag ci ay góor yàlla jigéen yàlla yoo xam ne tey tamit soxna Penda Bouye eh, eh, dem di soxna Fati Kuré Touré moom ñuy wax ak ñeneen ñeneen ñoo xam ne tey ay kàngam lañ wan yoo xam ne wax dëgg yàlla maanaa ñu am ngërëmal yàlla lañ gannaaw buñ jaaree fiñ koy wute ba am ko waaye wëlbatiku nag nekk ñoo xam ne dañoo am taxawaay ci biir askan wi yor ay daara di jàngal ay nit bañ mokkal alquran di leen jàngal xam-xam ba ñu nekk maanaam ay ay ay ay ay fóore Abo Kebe mi nga may wax naama e, maamam maamam soxna Mati nee na ko sama am soxna Fat Jaxate moo ma jàngal ba ci risaala abi zeydil xayrawaan soxna Faat Jaxate way juru Sëriñ Saaliw mhm. eh, soxna Mati way juru Sëriñ Musaa Saaliw te mbooloo la yoroon ñoo xam ne mu doon jàngal naka noonu soxna Say Mbàkke noonu mhm. soxna Aminta Job bi ñoom ñoo ñëpp tey doon doonoon ñoo xam ne soxna Aminta Amar ñoo ñëpp nekkan ay kat mhm. ñoo xam ne tey fa tabarakallahu ñu baree bari defaroo noonu ci ñoom et te am aman taxawaay bu mat sëkk ci lépp luy liggéey sëriñ bi ak lu liggéey bi yaatu loola nag kon eh, nga xam ne yésu taxawaay bi nga xam ne moom la eh, ñi nga xam ne ñooy saxaabiyaat eh, yi nga xam ne ñoo ñoo àndan wala ñi nga xam ne soxna yi àndan ak ak ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam muy ñi ko wëral di soxna Xadija soxna Umu Salamata soxna Aïcha ñooñu ñëpp tey taxawaay yu mel noonu am nañ ay ak ak i ak ba ci rabia rabiatul adawi muy ñu mujj ñi ñooñu ñëpp tey am nañ ay ay ay ay modèle yu mel noonu ci ñu njëkk ña ñoo xam ne liggéey nañ liggéey bu rëy boo xam ne dañ ko war a feeñal waaye nag fexe nag ba continuer di roy di ca loola soxna yi xam ne e eh, saa bàjjan yoonu mu dafa am loo xam ne tey ci particularité mooy comme dongo bi muy góor gi bëgg a ni muy jëlee doomam bi mu bëgg a defar seet seexal murabbi muy sëriñ bu sel bu mu yaakaar mu dénk ko ko comme na lay jëlee itam doomam bu jigéen bi war a defaru seet koo xam ne moom it soxna su baax la su sell mu jox ko ko kon lam ca bëgg mooy bu fa jógee mën a nekk sëriñum ñam fa bàyyi wa mm-hmm. loolu nag ñu war cee bàyyi xel bu baax ndax booba loolu moo doon am de mm-hmm. yàlla xam ne ne wallahi al azim mm-hmm. maa ngi rek E ca sunu dëkk bee di Mirina soxna yi nga xam ne tey eh, eh, doomi eh, kilifa yi nga xam ne dañ leen a joxan ca waa kër gu mag ca soxna yi bu waxtu lool li masaa jot ba ñuy ñëw di nuy seeni bokk yooyu bu ñu ñëwee ni nga leen di xàmmee bu baax ak ñañ fa bay ci seenu col ci seenu waxiin ci seenu yaat ak seen teggin day mel ni bokkuñu dara mm-hmm. ñu bokkal ndey ak bay loolu nag moo nekkan cosaan li moo nekkan cosaan li nga xam ne kii tërbiyewu moo xam góor la boo xam jigéen la ki gàddaay bàyyi kër baayam di wuti yàlla di tërbiyewu bu delloo dañuy gis ci moom ay melokaan yu wuute ak ñi fi bàyyi woon mhm. waaye léegi bu ñu demee nag ba malheureusement mhm. eh, ki nga xam ne moo ñëw ci sàbbajan gi wala moo ñëw ci sëriñ bi di tarbiyewu bu delloo amul dara lu koy wutale ak ñam fa bàyyi woon wala bu sàgganul sax ña ko bàyyi woon ëpp ko diine gën ko jikko waa nag loolu ndono li day daa tàmbalee ki ba tax kon il faut ñuy référé wu sa Abdoulaye ci mag ñi mag ñooñu di delluwaat ci seenu njàngale eh, ak seenu yarin eh, surtout nag jigéen ñi parce que jigéen ñi moom fa tabarakallahu eh, comme ni ko l'islam jàngalee boo bëggee wax dëgg yàlla islam xaarul ba xale bi juddu waaw xale bi juddu avant muy juddu la wax ne na nga ko wutal jigéen joo xam ne ju sell ju am diine mooy tax lu ci juddoo di doom rek fokk ñu yar ko jaarale ko ci wàllu diine kon tànn tànn ay soxna Eh, loolu it dafa bokk ci li nga xam ne ci liggéey bi la bokk yaxruju nabaatuhu wallah loolu dëgg lool jërëjëf sëñ Xaadim dafa mel ne waxtu wi dab nañu mhm. xëy na mhm. liñ bëggoon a waxtaane li mu ko waxee ci njëlbeen bi <laughs> dëgg waaw liñ bëggoon a waxtaane waaw dëgg bari bari sax duñ ci mën a àgg ndax waxtu wi dab nañu waaw ndeysaan waaye waxtaane lu am solo nag ci taxawaayu dëkk bi mm. dégg nga ak ñi fi dëkk comportement yi ñu war a am dëgg la allah muy jataay bu am solo boo xam ne jërëjëf jàpp naa ne mbokk yi koy topp yëpp mm-hmm. danañ ci jëlee ay njëriñ yu am solo waaye duñ yem fiit nag danañ dellu siwaat incha allah ah beneen rek yeneen i tomb incha allah mën a àggale yeneen tomb ci des kon ñu jox la kaddu gi nga nga nga jërëjëf jërëjëf moom comme liggéey bi moom moom euh, dañ koy jàppe daara joxe mm-hmm. <laughs> ne bind la rek mm-hmm. tàbbali nga bindi bi bo ëllëgatee ñu yokkaat ci mm-hmm. ñun waxtu wu nekk rek euh, ngeen ko soxlaa rek moom mën nañoo ñëw continuer ndax waxtaan la woo xam ne du jeex tey wërta jeex wërta jeex ndax tomb yu yaatu la yoo xam ne euh, te lu ci nekk sëriñ bi daf cee wax mmh maa ngi wax ak euh, euh, bëkk démb rek kenn yi mbokk mën naa leen bi ñuy wax ci phénomène bi xew mmh ma leen sëñ bi moom ba muy wax naan waka mubasharati i bil farji aw mmh siwaahu siwaahu waaye ne wa nutqa bihi ay dan naw bil kadbi wa samaa'i waka mubasharati bil farji aw siwaahu suñ abi bu ñoom ak ñooñu dañ lay ne aw siwaa lu dul moom rek ndeysaan parce mm-hmm. que ndeysaan waaye xamuñu ne li garaaw xam nga homosexualité la ñuy wax mais li gën a garaaw mooy lesbienne moo bari léegi xam nga homosexualité mën ngaa jàkkaarloo ak kee mm. xam màndarga yi mm. ne keekat doxiinu góor jigéen la ne ko ca doxiin wa wala waxiin wa mm. waaye jigéen jigéen jigéen mënoo ko caa xam te li ci xew taux bi fi mu ne fi mu àgg mëni su la ko wax bari aana ay sëy yu tas looloo ko tas. loolu moom dinañ am jotaay boo xam ne spécial dañuy ñëw ngir waxtaan ngir parce que lu garaaw la sëñ bi nag ne loolee lam ca doon bañ wa nut xab yi ay den naxaw muy buñ ko médiatiser buñ ko médiatiser bis bil kat bi mm-hmm. médiat écrit wa sama mm-hmm. wala audio mm-hmm. muy muy la xew léegi que mooy tax nit ñi ñi ñi ñu am promotion waaw parce que déedéet diñ ko bëgg dañ ko bëgg mooy promotion. parce que ñi ko dégg ñu di ko wax biñ ko dugalee ci internet bi ak ak médiatisé ko rek la commencé nag kenn ku nekk nag lii daal secret bi ci nekk foog ma découvrir ko. loolu ñu ngi ci tudd ay ministre di ci dugg ay chef de l'état di ci tuddal lii am na lu ci nekk. kenn ku nekk di ko di ko di ko kii moo tax sëñ bi wax ne woo nut abihi ay danaaw wala ba muy wax loola kon yooyu yëpp tey dafa nekk loo xam ne sëñ bi amul dara lu mbay bàyyi ah macha allah macha allah <laughs> jërëjëf Serigne Khadim kon jërëjëf mbokk yi nga xam ne yéen ñu doon topp ci seen émission liqaat yaakaar naa bii liqaat bii moom ndaje bi ndaje la ci biir ndaje yi mm-hmm. ngir li ci li mu làmboo ci ay njëriñ mm-hmm. tomb yi nga xam ne àndoon nañ ko ak docteur Khadim sillah mi nga xam ne ni ma ko waxee woon ci njëlbeen gi du dañ di ànd ak ñun ci liggéey bi liggéey liggéeyu Cheikhul Khadim bi ci wàllu xam-xam ci dëkk bi rawatina barab bu tedd bii di jumaa yi Touba ñu koy ñaanal suñu borom yokk ko kattan yokk ko wér yokk ko xam-xam dëgëral ko ba taxawaay yi nga xamante ni moom la eh, sëriñ bi am ci ñoom yaakaar ñu mel ni moom ñu mën ko gën di taxawee ñu ngi koy sant bu baax a baax ci turu daayira Muqaddamatul Xidma kon mbokk yi doon seetaan MKTV li mooy seen émission bi ñu leen indiloon tey ci liqaat euh, ci ndaje doon ci waxtaanee dëkk bu sell bi di tuuba ak lenn ci taxawaayu yoonu murit te àndoon ci ak docteur Khadim Sylla ñi ngi leen di dig daje ci weer wii di ñëw ci beneen numéro incha allahu taala wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum wa nasir wa li jamiil ya basir wa kathiran xayrati hada albadi ورزقه ولتكفيه عن نكدي